ajibila ajibila bisimilah inda wàllu yàlla asalaamaaleykum axlu lamb nuyoo siyaar warmal magal seen doomu day organe bor revue de moo ñëw ni leen suñu lamb lundi 22 juillet gros titre nii la demee face to face Modou Lo Eumeu Sène déjà le clash celui qui t'a humilié deux fois une chute vilaine que les gens ne vont jamais oublier Modou Lo may wax gros titre ba mu ne je vais te et te battre Eumeu Sène est vieil moins fort maintenant gros ama a tourné la page de guy gi gros titre yi noonu la demee bu ñu si biir jukki incha allahu rabi ci biir dañ koy tàmbaleeg fenêtre yi mu troisième comme suñu la mën koy defee saa ñu ne e moom Eumeu ba muy ñëw fële nga xam ne moo di sa monument de la renaissance ci li nga xam moo di face to face moom Eumeu jaaru ci porte bi de ci pont bala jaar pont bala jaar wàcc na ñol met ci biir li nga xam moo di face to face ba tey ci wetu Modou xarañ loo ki nga xamante ni nii moo yor bagage musique Modou Lo ñëwoon njëkk fa toog ci siège pour bu Modou Lo ñëw toog foofu la Eumeu Sène ñëw toog ci wetam maa la wax loolu ñu ne eh boobu noonu kat combat boobu noonu nga xamante ni kat mooy am muy combat royal bi ñu ne billets yi tàmbali nañ ko jaay de prévente waaw waaw commencé nañ ko jaay balaa ñoo egg li nga xamante ni moo di te bés eh, moom Modou Lo moom Modou Lo ba mu ñëwee de toog na lu yàgg yàgg yàgg yàgg ci biir otom balaa moo wàcc di ñëw ci li nga xam moo di face noonu ñu ne Eumeu Sène gis nañ ne kat moom kanam gi muy wane mooy kanam gu déterminé wu kanam goo xam ne ne mu arbitre bi soufflé rek moo fi bàyyi ki nga xam ne moo di Modou Lo mu keccop ko dem ñibbi moom Eumeu Sène kanam boobu wane ñu ne kat waa gendarme yi kat gendarme yi keroog job bi assuré nañ ko de waaw sécurité bi assuré woon nañ ko bu baax a baax a baax a baax ñu ne moom pakale senior bu lantaar ak kan moom Abdou Diouf ñu ne ñu nga fële sa États-Unis dañuy entraîné na ko ci biir li nga xam ne moo di journal bi ba eh ñëpp ñëpp ñëpp ay casquette yu rouge ñëpp lu waral loolu nag ah gars yi nañ xam xaan xaar xam fu wane di mujjee ak li nga xam moo di bëtam ñu ne Modou Lo Eumeu ah, gis nañ keroog face to face ñoom ñaar dañoo dend nii mbagg ak mbagg lañ toog nii dend un mètre sax doxul ci diggante trente centimètres doxul ci diggante diggante ki nga xamante ni moo di Modou Lo ak ki nga xamante ni moo di Eumeu Sène la sëtu Samba Xayaan bi damay ñëw gars ak li nga xamante ni moo di quatrième page quatrième page comme ni ma la ci titre ñu ne dernière face to face dernière face avant avant dóorante bi avant songo bi avant daan bi avant mystique yu sof sap yi lépp ñu ne eh avant mystique foofu mystique amoon na de ne nañ face to face bi mystique dafa safoon sap bataille mystique bi moom kenn dem loon ñu des Eumeu Sène ñëw na ak ay bagaasam Modou Lo ñëw ak ay bagaasam maa la wax ñu ne mystique bi na fa doole lool lool lool ñu ne ki nga xam ne moo di Moustapha Diop moom mi tëgg gi li nga moo di làmb ji ñu ne gisoon nañ kat muy wax ak ki nga moo di Papis Xarañ Lo di ko dalal di dalal ndax Papis ba mu ñëwee kat tàngoon na lool lool lool lool lool waaw ñu ne eh combat bi nga xamante nii nii nii kat yóbbuwuñ ko arène nationale fële lañ ko yóbbu fan te Léopold Senghor wax nañ nag promoteur wax na raison yi tax mënuñ ko nationale ba tax ñu yóbbu ko xam ne moo di c'est Léopold Sédar Senghor gars yi jalgat laam comme ni ñu ko defee saa su ne ñëw si tënkem paas bi cinquième page nag damay ñëw dugg si face to face bi Modou xarañ loo ak kan moom Eumeu Sène waaw le roi des arènes maa la wax loolu kan laa njëkkee le roi des arènes laa njëkkee de suñu làmb nee na nag gars yi affaire yi xastante bi tàmbali na de xas-xas loo bi tàmbali waaw moom mi nga xam ne moo di Eumeu Sène mooy wax Eumeu Sène mooy wax ci Modou Lo de Eumeu Sène nee ko nee na ko yow kila la daan ki la jàpp juutal la maa ko jàpp deux fois daan ko kon man nag yow maa loolu do arbitre bi soufflé moo la fi bàyyi nee na sport nag moom Eumeu Sène nee na sport warul jaxase dafa a a boole moom mi nga xam ne moo di Eumeu Sène loolu wax ci biir li nga xam na tamit ci moom Modou Lo moom dafa ko sax esprit dafa na sax da koy neex mu jaxarloo mu dend ak Modou Lo nii moom Eumeu Sène loolu la wax ci biir li nga xam moom moom moom Eumeu kat moom li buggul Modou Lo nekk bête noire am nee na bugg ko parce que comme que nee nañu moo xew ay ku nekk daan sa morom deux fois te Modou moom nee na te xalaatu ko sax Modou Lo nekk bête noire am ndax bëggul Modou Lo daan ko une deuxième fois li bëgg mooy jël revanche am wax nañ nag ci ci xas-xasloo bi tontante bi moom nee na kat moom du fi nekk di tontante ak Modou Lo déedéet moom Eumeu Sène de nee na moom lépp lu ko wax da koy denc nee na la koy tontoo jëf lay ba àdduna bi ne moom le roi na ba tey jeexagul de moom Eumeu Sène may wax ci nga xam ne moo di journal bi waaw waaw nee na ñaari mbër yi daan Modou Lo daan moom moo leen jàpp daan leen mais comme que Modou ko daan moom lay ñëw jël si revanche am ci kaw ki nga moo di Modou xarañ loo moom Eumeu Sène ba tey mooy wax biir li nga moo di journal bi nee na bii yoon nag bii du mbër bi kese moo ñëw de mbër bi ak bëreekat bee ñëw nee na ñaari kanam lay wane moom Eumeu Sène mbër bi moo ñëw ak bëreekat bi moom Eumeu Sène loolu la wax ci biir li nga xam ne moo di journal bi ba tey moom ba fin nañ wane li xam ne fair play su ma jugee si sëtu Samba Xaan bi le roi des arènes Eumeu Sène damay ñëw dugg parcelle wax ci kan moom Modou xarañ loolu le roc des parcelles assassinées moom mooy wax ci biir journal bi Modou Lo nee na Eumeu duma ma la jàppee dàll rek da ngay am lu la neex dama lay jàpp duma la duma la duma la duma la yóbbu la à l'usure comme ni ma ko defoon bee passé ba pare soog la daan moom Modou Lo moo wax loolu ci biir li nga xamante mooy journal nee na Eumeu Sène wax moom màgget na parce que bañ bëree ak ñoom ñaar bañ bëree léegi def na presque quatre ans wala cinq ans moom xale la dooleem day yokk Eumeu Sène mag la dooleem di wàññeeku boobu la ëpp doole ko léegi te boobu jàppoon na ko tamaate ko daan ko dooleem day wàññeeku moom dooleem du yokk kon bu ko jàppee da koy wan carrément ne ko du ma sa morom man maa la ëpp moom Modou Lo moo wax loolu fa li nga xam ne moo di Égypte les lions mu naa mu ne le 28 ñoom ñaar nee na moom moom xaw moom Eumeu Sène mais indi guerrier indi indi ko ci làmb ja yan ko ki nga xam ne moo di Lo mooy wax loolu ci biir journal bi moom Modou Lo laaj nañ ko nag si enjeu combat bi de enjeu combat bi nee na enjeu combat bi du dara lu dul su jàppee Eumeu Sène sax du lu ko neex nen dafa bëgg duma Eumeu Sène duma di duma di duma di duma ba àdduna yëpp xam ne duma na Eumeu mu jàpp ko bëriloo ko comme bu njëkk ba comme Eumeu Sène mu ŋaaŋee bu samay kàddu moom Modou Lo moo biir journal bi de waaw mu soog ko jàpp daan jël couronne bi yóbbu ko parcelle nee na mooy enjeu combat bi objectif moom combat si combat leneen wax na rek ci mobilisation mobilisation a baax a na li si njëkk mooy open press bi nee na mi ngi woo axlu woo ñi nga xam ne ñoo di ay fansam jeudi incha allah moom Modou Lo si open press am fële nga xam ne moo di interdit fa mu ko daan defee moom Modou Lo moo wax loolu biir li nga xam ne moo journal bi gars yi damay génn li nga xam ne moo face to face ñëw nag dugg si xam ne moo di cinquième cinq sixième page gars yi sixième page ah. damay dugg si combat yi ñu production ñu ne Pape Pape Thiam li mu indi caat Yoff attanu ko waaw jàpp na ko la ko suñu la am waxee ci biir journal bi ne ci arène nationale ñu ne moom moom mi nga xam Papa Diop moom Ndiaga Thiam kat vingt cinq secondes la jàpp Mori Cargo daan ko ci set wecc bu amul benn benn benn benn werante gars yi ma ne face to face waaw waaw Fallou caaxaanu de numéro un waaw du samay kàddu nag waaw waa Lamb Dieng wax numéro un maa la wax loolu ñu ne eh moom Fallou Ndiaye caaxaanul ci le 27 de waaw waaw nga xam ne jeudi amaloon loolu li nga moo lan. ah penc ba fële si 2 ñu ne samedi amaloon na li nga xam face to face fan la ko amaloon fële sa maris la ko amaloon ñu ne mbëri nga xam ne war cinq grands combats mbëri yi war a bëri si journée bi yëpp teewoon nañ nga xamante ne moo ah di Goro Sock di Franc di Nguer di Mama Lamine di Jokel di doomu dang di Farouz ah di ki nga xamante ne moo di Cheikh Super Jamono ak ki nga xam moo Bismi ñoom ñëpp teewoon nañ fële nga xam moo di sa marish ne kat yu ama ama su neex a a neex gars damay ñëw septième passe ah septième passe comme ni ma ah, Ama Balde Jules ah, wax loolu ndax taawu kër mooy mooy wax de nee na Ama Balde bu dee wax waxu ay waxu guy gi ay no guy gi jël revanche nii nii na Ama Baldé tourné na page guy gi instant Ama Baldé ci leneen lay xool ci leneen la nekk waxatuñ ci ki nga ne moo di guy gi guy gi su bëggee combat na dem xooli leneen maa la wax ba tey moom Jules Baldé ne moo di journal bi Jules Baldé nee Ama Baldé buy xaar combat Ama Baldé bu yeboo na nga te xam ne Ama Baldé dina am combat léegi léegi du yàgg déedéet damay dem ci beneen mbër wax ci beneen muy kan moom fils de Zallo jóge ci ndam lu am solo ki nga xamante moo di Arafat lu mel ni xeme nee na Arafat su ma bañee jël man fils de Zallo du dara tegu ko fenn lu dul daf maa ragal kese moo tax nangu maa jël moom fils de Zallo moo wax loolu ci biir li nga moo di journal bi ñu ne ginnaaw bi nga xamante eh, moo di Alaaji Mbaye Adama Diouf da daan rapidement le 13 fële nga xam moo di Alaaji Mbaye ban plan la mën a teg pour relancer waat ne moo di yoonam moom moo di Alaaji Mbaye affiche portrait la ñu ne ah portrait face to face Eumeu Sène Modou Lô waaw Eumeu Sène Modou Lô lañu ngeen gis noonu Eumeu Sène nekk ci bàkku bi waaw jekk loolu macha allah tekk jaaj yi ah def blouson bi jekk loolu ah nekk ci forme waaw ngeen gis Modou xarañ di wax ak supporter ne dégguma leen nekk ci tuus moom tamit yore kan bi yore bagage yore jaaj yi ah, moom tamit jekk loolu nekk ci forme ñoom ñaar ñu war a bëri combat royal bi le li nga xam ne moo di juillet fële nga gars yi damay ñëw rek tëjee ko jalgat laam comme ni ñu ko nekk jalgat laam tey kan moo xarañ loo moo fa nekk loolu rek des parcelles de waaw tey moom xaw ma indien la xaw ma indo la xaw ma lan la mi ngi ci kaw fas bi moom Modou Lo de waaw tax jaaji yore drapeau bi maa la wax loolu mu ne la reconquête la reconquête mooy lan couronne moom Modou Lo mooy wax mu ne ci ci ci ah, ah ci fas bi la yéeg foog mu dàq ko foog mu dàq ko mu du ma dellu parcelle du ma dellu parcelle te yóbbuwuma li nga xamante ni moo di couronne bi de Eumeu Sène maa ngi ñëwoon xaar ma gars loolu nekkoon suñu lamb di leen jaajëfal mais gars loolu ci mën di dégg loolu ci mën di dégg ah fin de saison bi macha allah le 27 le 28 le 31 maa la wax loolu le 27 Ndiaye moo woote ndeysaan le 28 kan moo woote moom Moustapha Diop combat royal bu ñu fa jugee tëjee ko nag le 31 maa la wax loolu kan moo woote waat moom Dieye production moo woote diggante kan ak kan Zambala ak kan ah DJ gars yi